joxe nañ ca 4 millions waaye lii moom képp ku nekk suñ Tuubaa lii boo mën a soobu ñoom ñoo koy jaayantewaat bokkut ak seen at yi démb ji dara ñu ñaan nag nga egg nga nga nga eggale université bi ba inauguré ko ñu ànd ko yow te nga naalaat yeneen ak yeneen te yàgg fi lool te wér léegi ku a bëgg Xaadim